dara mu tontu ndax vraiment am nga temps sànni ko xeer comme tu veux ma laaj la benn yëf arbitre yi ñaata lañ leen di dampee par match ah, loolu nag xam nga bëgguma c'est comme nga laaj ma man sama salaire fonctionnaire ah d'accord kon ma dem ci sama gars yi <laughs> euh, Bamba donc euh, li ñu jàngatee ci li Ablaye wax mun nañ ni euh, donc bi ligue yi taseeg tey ak yooyu Augustin Senghor mandant wam yi delloo nañ ko confiance ban appréciation ngay am ci acte donc yi ñu gannaaw loolu poser donc remplacer les démissionnaires taxawal direction générale des trucs continuer alors que comme ni ma wax bon y a certains qui s'attendaient peut-être à ce que ñu dem. waaw xam nga euh, ma wax ci wolof euh, neex. <laughs> écoutez moi que dans ce genre situation déjà <clears throat> il faut pas faire trop dans la dans les ne peut pas prétendre connaître ce qu'il y dans la tête des gens il y a une réunion statutaire. convoqué par la fédération actuelle, parce que la fédération continue d'exister, et euh, élargie aux présidents de ligue. Donc on peut dire que euh, c'était une recherche de légitimité quelque part, parce que euh, le comité exécutif en tant qu'instance aurait simplement pu se réunir et peut-être procéder aux changements euh, qui ont été annoncés tout à l'heure par M. Sow. Mais ils ont peut-être voulu, euh, par cet acte-là, euh, donner une plus grande légitimité à leur, euh, à leur, décision et surtout, par la même occasion, consulter la base électorale. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, pour être président de la fédération, il y a un collège électoral constitué des gens du mhm. football qui élit. Okay et donc, Pour moi, euh, pour moi euh, ils ont juste. Euh, euh ils sont retournés à la base électorale. Ils lui ont posé euh, une question de confiance. confiance. Et euh, l'issue de cette réunion, on constate, comme tout le monde, que euh, la base électorale fait encore confiance à sa fédération et lui demande de continuer ses missions jusqu'à terme. Et ce sera au mois du prochain. mais Babacar Babacar euh, yow it euh, ban jàngat nga def ci acte yi nga xam ni fédération bi comité exécutif élargi bi posé na ko tey gannaaw bi ñu dajee ak décision yi nga xam ni lay Sow siiwal na ko moom lañ fa jël. Euh, merci Ablaye man li ma ci wax mooy euh, c'est surtout qu'on le football sénégalais li li ñuy wax on passe trop de temps à des à dafa am yoo xam ne je trouve que jarul jarul sax wax ji di di bëri ci lu jëm ci loolu. c'est quand même aberrant qu'on à six ou sept mois. d'une assemblée générale ñu toog di di di di di di wax ak euh, wax ji di bari ci ndax on va les démettre on va pas les démettre yooyu pour man le débat est ailleurs le le débat c'est il y eu euh, des manquements euh, lors du match contre la Côte d'Ivoire je parle même pas du résultat sur le mhm. plan sportif mais li xew ci stade bi mooy li nga xam ne wone woon wane nañ Euh, visage bu ñaaw bu Sénégal. pour indiscipline caractérisée la woon loolu. le débat ci loolu la mm. war a concentrer wu plutôt que ci ndax fédération euh, on doit les démettre ou pas il y a un moment pour faire un bilan quand ce moment viendra ben ñëpp ñu toog ñi war a présenter seen bilan ñu présenter seen bilan ceux qui doivent juger jugeront. Euh, je mm. pense que c'est ça le plus le plus important maintenant il y a des actes qui ont été posés am na ñu ñu démissionné entre-temps. comme a dit monsieur Sow je crois qui est président de la commission juridique ils ont été ils ont été remplacés pour man on doit plutôt se se concentrer vers l'essentiel voilà léegi dañuy jot jot euh, léegi dañuy dem euh, Marseille avant ñuy dem Marseille vieux pour nous permettre euh, de joindre Pape Seck ak Mame Fatou Ndoye mi fa nekk alors dañuy dugal rek donc l'intervention du président Saer Seck pour nous permettre justement de joindre Marseille le président Saer Seck qui demande quand même aux autorités de respecter le temps des instances. Éléments. Vous savez, vous voulez avoir euh, des équipes fédérales de qualité. Et parce que <clears throat> Adebayor nous a marqué un but euh, et nous élimine de la Coupe du Monde euh, dans une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de stars qui réclament encore d'être dans l'équipe, euh, euh, on renvoie la fédération. Parce que euh, nous n'avons pas battu la Gambie, on renvoie la fédération. parce que euh, nous n'avons pas pu éliminer la Côte d'Ivoire, on élimine la fédération. Euh, je pense qu'il faut savoir respecter les instances et respecter les temps des instances. Euh, honnêtement, je ne ferai pas partie des loups qui crient. Je considère personnellement Augustin Senghor comme un bon président de fédération. Il ne peut pas tout réussir, mais ce qu'il ne réussit pas, il appartient aux Sénégalais. de l'approcher de manière à lui apporter les contributions nécessaires pour qu'il puisse effectivement les réussir. Il y a une assemblée générale qui va avoir lieu dans quelques, euh, dans quelques mois. Mmh. Bah, si le mouvement associatif qu'il avait démocratiquement élu estime qu'il faut le changer, bah, il prendra ses responsabilités à ce moment-là pour le changer. Mais je pense qu'il est urgent de respecter le temps des instances et de nous inscrire dans une stabilité qui seule peut porter le développement de notre football. Sayer Sek, donc euh, parfaitement en phase avec euh, Babacar Ndaoufay. Alors je vous le disais, on va à Marseille. Marseille euh, Pape Seck lañ fay euh, fekki euh, di ganale jamono ji mam Fatou ndoy bi nekk foofu congé mais aussi war a tourner des émissions Pape Seck bu dee yaa ngi may dégg ñu ngi lay nuyu. Laye alors merci alors naka naka ma naka nga def ak Mame Fatou xam naa sonal na la. <laughs> <laughs> alors loo xalaat ci acte yi nga xam ni fédération bi posé na ko tey en procédant au remplacement des démissionnaires taxawal aussi direction des arbitres. waaw man damay nuyu d' abord téléspectateurs yi dafa am lu ma jaaxal parce que dafa mel na dañu bëgg juger fédération bi si matchu Côte d'Ivoire rek te problème bu fédération bi du matchu Côte d'Ivoire rek il sont faillis plusieurs fois. ci temps bi ñu def ci kaw ci kaw fédération bi lu bare ay manquement yu bare dafa am man bu ma leen di jugé seen histoire fi mu jógee ba fi mu toll laay jugé comme ni ko Babacar waxee léegi bu fekkoon compte Côte d'Ivoire rek la ñuy xool doo sa xool côté sportif bi yaa ngi xool. Mhm. li am mooy incident yi am. Mhm. mais pour man su fekkee fédération bi laay jugé. y a eu trop trop trop trop de manquement ak ay wax yi nga xam ni dana tax ñu bañ leen mën wóolu pour ñu dawal suñu football nañu dem visiter ji histoire lu ñu def leen parce que lenn rek dafa doyul ñoo ngi football loo xale yi di football loo jigéen ñi di football loo kii doyul résultat bi mooy la ñu fexe woon ba ñuy football championnat Sénégal mën jàll di jouer coupe d'Afrique di dem ba quart de finale wala daal mais bi moo lay éliminé mënoo sax jàll deuxième tour coupe d'Afrique sur ce championnat.